oto bu fi génne bu génne fii rek jóge ci garas bi moo xam garas bi la jóge wala gaz kër gu mag wala feneen la jóge ci gaz rek dem ci beneen dëkk cent franc la ci regroupement bi am cent franc su fekkente ni oto bi dafa jóge fii jëm di sept place yeme fii dem Touba bu bu bu bu mandat bi de six cent employé yi ñuy wooyee coxeur ñoo téeméer bi cent franc yi la regroupement bi am cent francs 100 francs moom la ñuy wax ne nag cinquante auto départ na fi wala 100 auto départ na fi ñu multiplier ko par cent mu jox la 30 000 wala mu jox la cinquante 000 léegi nag bu loola génnee nag loola mooy li regroupement bi am bu bu loola desee garage ndindi wala garage taxi yi nga xam ne ñoom ñooy def seen i bilan bis bu set ñuy génn seen téeméer wala seen 1000 francs di ko dajale bu ko defee gare routière bu ne bu weer dee ñu garage taxi bi indi na fi 15000 garage ndindi indi na fi junni. diw ënd na fi junni loolu mooy li nga xam moom la regroupement bi dajale ba am ko waaye léeg-léeg rego boo boole loolu lépp mën naa am gare routière am trente mille ci journée bi mën naa am mu vingt cinq mille waaye mën naa am frais cinquante mille ci journée bi kon jàpp naa ni gare routière yi amul loo xam ne dañ na ko mën a am liñ mën a wax rek mooy oto boo fi départ daal cent franc la ci regroupement bi am